non ba tey nee la ci bisu mo xëbër xëbër bi ñu ñoo fekkat fi benen daana nuyu nañ la. ma lay delo ziar. di la jox sa waccu maa ma lay koy delo bu baax baay nga beuri bëri tiitër beuri euh, manière beuri ay ki dal man daal artiste ñe jaaxal lañ ma. sant yalla pourtant bëri ma tiser juste ni la mer rek ah ku xamul nak mooy yaakaar dama. moo nitu fii. ankay ah, yëmbal yëmbal wa ay <laughs> tay ñu gis la ci bisu mo xëba xëba waaw euh, mo rek dafa nek ko xamanteni ci suñu xarit la suñu doomu nday la nek ko xamanteni ci si daf ñu jox cër moom xamul ku ko mag xamul ku mu mag moom ñëpp la boole yemale ba tax na maanaam dañ koy fay borom rek tey bu meloon neneen nit bu wootee woon tey du ñu ñëw parce que joxuñ mu lekk joxuñ ñu naan waaye tamit li mu ñu wan rek looloo tax tey dañu koy ñëwal quoi loolu kese la di ko ñaanal yàlla lii nii mu dem ba koy tëgg grand théâtre incha allahu rabbi sunu borom defal ko jàmm tawfeex ndam ak manoore. est-ce que mën incha allahu rabi ma indi leen ay information yu doy waar. information doy waar. revue de am kii bu ma def revue de presse ma gaaw léegi dinaa la revue de presse. bi. <laughs> ok wala ñu nax jéeg borom bëgg muus mi loolu suñu yoon nekku ci ah, ah. ok d' accord li suñu yoon nekk kon mi ngi xewee ci séeréer bu tudd Ngor Ngor moo doon ak benn joolaa joolaa bi daal di ko lan moo daf naa ma dangaa dof te dof bi may wax neexuma commissaire pël bi daal laaj Ngor ne ko lan moo tax nga naan daa dof Ngor ne ko commissaire kii dafa dof soo ko wetee ne ko mu dem suñu kër xool ma fa ba maa ngi fa wala déet rek joolaa bi tëb nar a génn tribunal bi commissaire bi ne ko foo jëm joolaa bi ne ko ko ñëw Ngor laa xool ko fa ba xam ngi fa wala déet rek commissaire bi reetaat naka yow neexul ba neexul way li la ngor di wax deug la da nga dof ndax li nga nara passé di dem ko ñom ngor boko woyé téléphone di nga xam ba xam mo ngi seen kër wala diit waaw ñom ñaar mo kan mo gën ki bu ñu newoon dëkk bu nekk ni ngeen li gën bari ci dëkkam xam na ni mbalitu sénégalais yi mom dina yé ñu fa yëpp li nga waral moy dina bi nga xam ne dafa jàng métier pendant une semaine daan na dee beeru ubbi salon de coiffure premier client bi mu jëk am jago la jago bi ñëw tok guinéen bi nako ko watu njaago bi ne ko dabala Guinéen bi midi ba 23h muy wat njaago bi njaago bi pare ne ko alma seetu ma xol ba xam sa wat bi rafet na Guinéen bi tàmbalee jooy man nak lima jaxal nak moy lan la Guinéen bi wara joy wala Guinéen bi wara joy sax mom ya moy xamone Guinéen bi wara joy tudd Eva Eva dafa góor doomam daal di dugg ci tata 43 bi jëm buntu Pikine bi muy dem ba ci yàgg receveur bi xool ko ne soxna si neexul ba neexul waaye sa doom ñi ñaaw na Eva loolu daal di koy naqari mu ger si yam ci police u Caaroy bi Eva daal di dugg ci police bi ngir porte plainte ki nga xam ne moo di receveur bi bi mu duggee dajee gardien bi gardien bi ne ko koy seet Eva expliqué ko problème bi gardien bi ne ko koo ko plainte waaye waaw bu ma wekk bind ma ko rek journal bi ko kan ko aay moom ma télé sa ko ndaw gi nga bon tax golo di dugg ci biir police bi way dañ leen di bala ñoo jeexal journal bi dañ leen di wax li nga xamanteni ci mom la bëggeel mëna def ndax xalé bu jigeen bi dafa toogoon ak faram doon waxtaan ne ko bébé démb dama la géntal gént bu neex far ne ko loma gëntal mu ne ko démb dama la gëntal ngay tukki sol ko ci bu ñuul sol service bu ñuul tak dal yu ñuul tak montre bu ñuul yor sac bu ñuul nga dugg ci taxi bu ñuul nga dem ba aéroport gi dugal la ci avion bu ñuul nga tak ceinture bu ñuul avion bi dem bay décoller courant coupé xana gën naa lëndëm de ma leen a fi mu rek far bi jël paaka ne ko courant ñëw na àggalil gént gi wala ma rey la mbaa nga xat géej gi ma jaar ci dem ma dem xooli xale bu jigéen bi nga xamante ni si dañ ko doon may jëkkër muy ñëw bi muy ñëw ñi ko indil dee ko woyal naan bul dóor bul saaga américain eh bul dóor bul saaga eh bul dóor bul saaga waa wax ba pare waa ji taxaw ci bunt bi soo jàllaat même daal di tëmbal